leen sant man mi wax ak yéen sàmba balaa tudd euh, euh, nekk directeur d'école mais ñu dénk ma lépp luy wàllu njàng mi ci ci ci conseil municipal bi euh, tey nag cérémonie bi nga ngeen fekke tey da ñaari mbir moo lal dañuy juróom juróom ak juróomi juróom benn junniy cinquante page doole ci aussi tout tànk yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci Euh, classe su petite enfance bi dañu wax ko préscolaire am na juróomi préscolaire yoo xam ne mi ngi ci tund wi am na ñeent yoo xam ne ñu ngi piir ak benn bu nekk kër ga la ku ci nekk aussi am na ca loolu lu ñu yëkkati teg ko ci say loxo ndax nga mën cee door am na craie yu bari joo si am yoo xam ni dinañ leen ko séddale muy craie blanche ak craie de couleur. bon jafe-jafe table banc yi moom am na ay la yéwén parce que euh, dotation gëj nañ cee gëj nañ ko am li fi nekk mi ngi yàqu naam ñu ngi topp ñu ngi koy toppatoo mais nag wax dëgg yàlla élèves yaa ngi yokku école yaa ngi yokku parce que euh, école yi euh, bu njëkk ay mi ngi woon ci fukki école ak ñaar jàpp fukki école ak ñett tey ñu ngi ci fukki ak école ak juróom-benn ci école boo taxaw élèves yi war nañoo am fu ñu toog loolu nag moom moo fi jafe mais nag teewul ñu ngi ciy jéem. parce que am na programme de réhabilitation des tables bancs bu am au nombre de cinq cent ñu séddale ñu ko ñu nag commune de Tivaouane waa commune de Tivaouane bi jël na trois cent ñun ñu jël ñu jël deux cent loolu ci la ñu taxaw xam naa ni programme bi mi ngi ñëw mais accès bu ñëwee wax dëgg yàlla ku ci nekk la nga tollool des na la ko jox problème mu mbaar moom mooy mbaar xam ngeen ni ñaari village la Mbaar Ndiaye Mbaar Ndiaye ak Mbaar Diop ñoom ñoo ngi leen taxale woon fële ci booru ICS bi ñu leen taxalee booru ICS ñu indi leen fii ci commune Pire ñu ne ñun la ñu bëgg a dëkkal ñu leen ci gërëm di leen sant aussi am yéene aussi ànd ak ñoom jàppale leen euh, problème école ba nag mooy daaw bi ñu ñëwee euh, xale dafa am ñoo xam ne dañoo indaale seen i xale ca waajaluñ leen fuñ leen def mais nag ñun ci suñuy pexe ak ndimbalu inspecteur de euh, de l'éducation Euh, monsieur Ba ma di ko saluer au passage moom moo jàppale ba nu ubbi ñaari classe euh, mbaar li ci des ñu tas ko Kër galo ak école yi ci biir Pire. Euh, waa li ci des nag mooy ren ñoom bi ñu ñëwee aussi la desoon toobeen dafa toll ci quatre-vingt-dix-neuf élèves ñooñu itam dañoo ñibbi si benn yoon. ce qui veut dire que actuellement ils au nombre de cent soixante six gosses à recaser pour ci fukki table banc ak juróom loolu mooy indi jafe-jafe bi mais ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax. wax nañ ko monsieur le maire aussi dañ ko jooy fépp fu ñu ko war a jooyee ndax yàlla mën ci defal sutura bon lycée bi aussi comme ni nga ko waxee lycée bi dafa démarré woon ak benn collège dégg nga bañ doon benn benn collège bi ñu defee collège ba pare dañ ko mujj nag transformé ko lycée xam nga lycée ak collège moom la boole loolu tax problème yu bari mais ñu ngi ciy lu baree baree bari monsieur comme ni ñu ko waxee sànq aussi wax dëgg yàlla loxoom jugu ci pratiquement euh, lycée école classe la muy bari bari bari moom ci wàll boppam ci xariñam lu mu gàtt gàtt def na ci juróom ba ci juróom benn classe depuis at yii passé euh, ñi ngi la communauté parce que aussi pour yeggale ko avant la la fin du mois d' octobre. gëm nga ni communauté. Mhm. mën na soqali mhm. mhm. nañ ko suqali euh, suñu ja suñu suñu suñu jumaa ji bi ñu koy réhabilité. def nañ ci jàppatuma euh, millions yi mais les quatre vingt dix neuf pour cent la communauté ñoo ko def. te boo fa demee ci jumaa ja léegi macha allah dégg nga euh, maternité bi ñu tuddee maternité booloo liggéey li ci ëpp 78 millions lañ ci def te jàpp naa ni li ci ëpp li ci ëpp communauté bi moo ci def li liñ ci état bi defal mooy xanaa peut-être recruter nu sage femme affecté ñu ko fi indil nu indil nu indil nu ma matériel matériel d'hôpital bi loolu la ñu indil euh, Pire dafa nekk dëkk boo xam ni lu nu jéem mën nañ ko man li ñuy ñaan kay mooy ñu gën a dajaloo. ñun ñëpp topp ci ginnaaw monsieur le maire comme ni ko Ndoye baan waxee léegi loolu daal xam naa ni moom bu ñu ko defee yàlla mën na noo dolli sutura ndax yàllaa ngi defal sutura waaw. jàng ak ay garab yu am solo tollu valeur bu 10 millions ak lu ko teg di gërëm Mamadou Ndoye Bane di doomu piir mu yëg ni ñu ngi koy def mu jàpp ci indi lu toll ñaari junniy kaye moom it dolli ko ci ci doolee boppam loolu wane na ni njàng xale yi surtout moo nekk suñu priorité ñun seen njàng seen wéru yaram. ak nu ñuy def ba jàppale seen yaay boole ko beneen événement boo xam ne gis ngeen ko ñu lancé tey ak soutien wu benn doomu Pire premier bus bi nga xam ne mooy indi transport public urbain ci piir foo jëm nga fay fukki dërëm loolu lu rëy la ñu koy gërëmee Djibi Diagne mon parent parce que bokk na ci effort yi nga xam ne dañ ko def pour ñëw jàppale commune bi ci euh, gestion dëkk bi nga xam ne moom lañ yore te lycée ba xam ngeen ni dafa xaw a sori xale yi dañuy dox ay kilomètres ci naaj bu tàng pour jàngi Euh, dëkk yi ñu wër aussi dafa bëri marché bi nekk lu ma bu am solo euh, amul benn moyen de transport pratiquement bu dul ay kalando ak i voiture kon suñu amee euh, mode de moyen de transport urbain yu mel noonu dina dina amal solo li ci des mooy am lycée bi ñu ngi ci ñu ngi topp gouvernement bi gannaaw ñun bi ñu jàppalee ba def fi juróom-benn classe ci suñuy doole ak ay doomu prix ci jàpp ak ñu indi ay table banc indi yeneen ñu ngi defaat yeneen ñaari classe parents d'élèves yi jàpp ci ñu changé saalu professeur yi man sam bopp ak mairie bi ñu ngi euh, di di modifier terrain de sport ba fa nekk équipement yi ñëw na ba pare euh, muy terrain multifonctionnel basket euh, ak bal ak yeneen équipement yi ñu ngi fii defar mu jóg moo ci des des nañ ñu tabax lycée bu bees parce que boo dee am en en général ci 64 cinq pour cent la ñu am bac at mu nekk BFM ñu toll foofu. et eh, defe naa sax ren bu ñu xoolee région bi xale bu jigéen bi raw la ñu wax euh, ci pir la bokk wala deuxième bi parce que ay moyenne 17 19 bac mention très bien bu amee surtout xale yu jigéen yi euh, loolu jot na ñu am lycée bu bees loolu nag ma gouvernement bi jëloon na ci ay décision ci conseil des de décentralisé bi ñu defoon Thiès ak euh, ministre de l'éducation mi ngi koy bàyyi xel ñun tamit ñu ngi ci topp pour que loolu ñu defal ñu ko ak c'est buñ ko defee. même bu ñu amul CEM bu bees ñu déclassé lycée bu njëkk bi en CEM defe naa loolu dina permettre njàng mi gën a am solo d'autant plus que depuis case des tout petits ak yeneen euh, préscolaire yi fi nekk ñu toll ci cinq suñu ndimal dem na foofu donc euh, pour que xale yi préscolaire scolaire moyen segondaire et secondaire ñu am des niveaux d'éducation et des équipements qui leur permettent justement ñu am résultat yu baax yi xam ne moom lañu xam li ci des mooy wàllu wér-gu-yaram yi dañu bëgg ñëpp mën a jot ci garab yi gannaaw journée médicale yi ñuy def ak li ñu def ci centre de santé bi ak centre de dépistage cancer bi ak yeneen ak yeneen ñu indi garab yi doy valeur u 5 millions def ko subventionné ko pour que bu ni nit ñi jënd ñu jënd ko ndik yi gën a yomb ba boo feebaratee doo ragal ni damay dem ordonnance ak ñu bind damay dem hôpital ak ñu bind ma ordonnance bu cher donc euh, loolu daal mooy suñu mbégte ci bisu tey bi may sant euh, ñu ci jàpp ñëpp en particulier euh, seen collègue bi Mamadou Ndoye Bane nga xam ne vraiment daf ci def contribution yàgg ko def nag ñëw ànd ak ñun ñu boole suñuy effort def naa bu ñu defee loolu pur dana jëm kanam